nañoo ba mu bokkoon kuréel gi nga xam ne mooy alliance internationale ci wàllum résilience ak ci li nga xam ne mooy ci bi ki nga xam ne kat mooy njiitu réew mi moom fa nga xam ne fa la teew di Dubaï ñeel ñaar fukkeelu conférence ba juróom-ñett ci Nations Unies ci wàllum climat bi moom kat ma ngi cay yëkkati yenn ay kaddu moom njiitu ne daal am ci ay données yoo tukkee ci convention des Nations Unies wax na ne li nga xam ne mooy wàllum sécheresse bi nag moom dafay daal di laal benn milliard ak lu teg ci ay doomu aadama maanaam téeméer boo jël juróom-ñett fukki ak juróom ñoom ñu ngi ci dëkk yi nga xam ne seeni koppar demeewul noonu moom Macky Sall daal di fësal kat ay priorité ne daal ba ca njëkk rek mooy lii nga xam ne daal mooy wàlluma euh, convention des nations unies war na mën a xeex wàllum toskar alam bi ndax gis na ne Afrique ci boppam moom mooy gën a ñàkk ci li nga xam ne kat mooy jafe-jafe waaye tamit comme nañ ko waxee woon ca conférence de Rio bi nga xam ne amoon na ca 92 benn priorité ci la yëkkatiku ne daal ci nga xam ne mooy wàllum alliance mën nañoo euh, waxtaan ci transition énergétique waaye tamit jéem a xool ci naka lay mën a tolloo loolee ngir Afrique li nga xam ne tamit muy wàllum industrialisation ak accès à l'électricité mu mën ko daj beneen bi moom nee na dañoo gën a waral bari jéego yi ci daal grande muraille verte ñu teg ko waaye tamit wàllum reboisement ñu gën koo bàyyi xel ba tey moom njiitu réew mi nga xam ne moo so robu avocat képp kuy doomu Afrique ne daal li nga xam ne mooy tas ko rek alam bi loolee war nañ koo mën a xeex bu dul lool daal moom moo ci gën a amee jafe-jafe ci tribune bi nga xam ne kat moo ñeel Nations Unies di kuréel mbootaay xeet yi moom ci boppam Macky Sall ne daal lii nga xam ne tamit mooy taskar alam bi war nañ cee jàmmaarloo ak moom ma fa nga xam nag fa la teew di Dubaay ñu bëri ñu ngi koy xaar ngir bokk ci li nga xam ne moo di ay panel njiitu réew